ndax xam nga nettali bu am solo bu jóge ci nit ku njëkk a nekk ci kaw àdduna moo yonent yàlla aadama moom yàlla moo ko sàkk moo dàqoon ci lépp lu yàlla sàkk ci kaw suuf te yàlla joxoon na ko toog bu ëpp solo waaye benn bés Adama ak soxnaam dégle nañu kàddu noon gi maanaam iblis ba ñu ñàkk déggal yàlla bi ñu bàkkaaree ñoom ñaar ñu gis ne solu neen lañu defoon ñu dem làqatu ji ci biir garab yi nekk ca tool ba te amoon gàcce lool ci li ñu def neen te ci loolu ragal dab leen ndax xam nañ ne déggal ñàkk déggal nañu yàlla ñoom ñaar ñëpp ñu dem wuti ay xob ngemboo ko waaye ci sa xalaat ak naaj bu tàng bi ndax mën na leen aar xob yooyu ñu ngemboo déedéet xalaatuma ko tu tamit loolu ñu ngemboo maanaam xob yooyu ndax bu lonkoo ci ay dëkk dina mun a des ci ñoom déedéet xalaatuma ko ndax xalaat nga ne xob yooyu ñu ngemboo dina làq seeni gàcceb neen déedéet seen gàcce doon neen lool ba tey saafarawuñ ko am yére yi ngay ngemboo mu doon xob loolu du doon lu yàgg gàcce bi mu ngi woon des ak ñoom ba tey lan moo xew ci mujjanteel ba waaye yàlla jox la leen ay yére yi nga xamante ne deru mala lañ ko defare te naaj wi lu mu tàng-tàng bu dalee ci seen kawit du yàq der woowu ndax yére bu baax la ndax yàlla ci boppam mooy saafara saafara bu mot yàlla ci boppam moo làq gàcce aadama ak awa maa ngi am benn laaj bi ma lay laaj bu fekkee sa ruux mu ngi ci kanamu yàlla looy xalaat ci loolu foog naa ne ñun ñëpp dinañ tontu ci loolu ci kanamu yàlla dama nekk neen to am gàcce ndax yàlla ci boppam xam na sama dund bépp te yàlla rekk muy mën a jox yére bi nga xamante ne day làq suñu neen to kaamil gi wax na ci mbir moomu yow doom aadama wàcc nañ ci yow ay yére yi nga xamante ne day làq sa gàcce ak lu muy àndal waaye yére ne moo gën te loolu kattanu yàlla la mu nekk ci surat juróom-ñaar aaya ñaar fukk ak juróom-benn ci aaya bi dañuy wax ci yéreeb yërmande wala ci yéreeb njubte mooy yére bu gën ci yépp waaye lan mooy yére boobu benn xarit nee na ma yéreeb njubte bi mooy bu ñuy dox ci juróomi ponk islaam bu ñu ko defee dafa mel ni sol nañu yére bi ma tontu ko yow nee na nga ma yére boobu mooy samay jëf soo ma mayee ma tënk ko ndax yow ci sa bopp danga naan yaa ngi def loo xamante ni lu baax la ngir yàlla yow yaa ngi ma bëgg a wax ne yére boobu yow yaa ko defaral sa bopp jaarale ko ci say jëf déedéet yàlla rekk moo ñuy muural suñuy gàcce yàlla rek moo mën a joxe yére njubte boobu yent yàlla yi Ibrahima ak Daawuda xamoon nañ bu baax njàngale moomu sunu maam Ibrahima miinu nu soqeekoo ni mburam tëddee bu fekkonte ne Ibrahima ci kawi jëfam la ko yàlla àtte ni ko jub kon am na lu mu ci mëna a damoo waaye demewul noonu ci kanam yàlla lan la min mi wax ci loolu nee na Ibrahima gëm na yàlla te yàlla jàppe na ngëmam ni jub képp kuy liggéey dina jot payam te pay googu du ak may ñaqam la waaye yàlla dina àtte njub sax ki ko weddi woon kon ku wéeruwul ciy jëfam waaye mu gëm rekk yàlla dina ko jàppe dina jàppe ngëmam ni njub noonu la daawuda béralee barkelu nit ñu yàlla jagleel njub fekk ay jëfam taxul mu ne ni ñu baal seen jàddu yoon te seeni bàkkaar far ci kanam yàlla ñu barkel lañu biibal bi ñeent ci rom benn ba juróom-ñaar yonent yàlla daawda day wax ci mbëggeel ak neexaay bi am ne yàlla rek moo mun a jox nit njub waaye kan mooy lan mooy yéreeb njub te moomu yeesu mi sell te jub moom ci bopp mooy yéreeb njub te boobu mu yéreeb njub boobu ci baatim nga soxla kon yow ci sa bopp soxlawoo defaral sa bopp yéreeb boobu na la yàlla barkeel maa ngi lay bàyyi nga tànnal sa bopp ban yére nga bëgg a sol maanaam moom nga bëgg yor ci bésub àtte bi waaw ndax yow ci sa bopp benn bés dinga nekk ci kanamu yàlla bu fekkee vidéo bi amal na la solo mën nga ci joxe sa xalaat te nga bokk ci ñu koy déglu saa su nekk na la yàlla barkeel